Tay maa ngi fi teewal tey euh, le président de la République ak le premier ministre ak l'ensemble des membres du gouvernement euh, si quatrième édition Setal Sunu Réew euh, bu le président lancé woon depuis le mois d'avril. tey en tant que secrétaire d'état chargé des PME ma leen désigné pour ma ñëw Kaolack représenter le gouvernement mu nekk ville boo xam ne tey bu ma ñëwee ba léegi suba lancé officiellement le programme gis naa engagement ak détermination déjà si dalal bi ñu jugee euh, du commune bi les services techniques UCG CG cadre de ministère de la jeunesse de cette appropriation quand même euh, de cette journée. le sentiment parce que depuis première édition chaque édition par rapport à cette une mu est président de la République est premier sensibiliser pour la gestion du cadre de vie Nous édition nekk chaque jour donc c'est en bonne voie ñu ngi édition éditions du ñëwaat du ñëwaat chaque fois dina gën di am doole gën am mobilisation nga xam gestion cadre de vie ak setal suñu de du doon kese activité boo chaque mois la nga def mais activité quotidienne la da ngay dund di ko par rapport à nos comportements je pense que édition du ñëw su fekkoon ak organisation ak méthode leen dem pousser les Sénégalais à s'approprier quand même euh, de ce projet Sitteu Sunu Réew. waaw li ko sabab rek mooy mooy mooy euh, mooy que doomu doomu dëkk bi laa te fii la dëkk euh, te Medina Baye tamit ma bok ci motax tay ci préparation gamu gi ak appel bi président de la République def ak le premier ministre ci jëm ci journée nettoyage bi première édition bi ba quatrième édition bi duñ leen baye mukk si daal moo tax ñu jël ci du moyen te xamné ne Medina Baye fay accueillir ay gan yo xamné ci ci région bi bari nañu ak sous région bi en tant que fils de Kaolack lolo waral chaque édition. ma fexe tout ak suma mooy ndaw ma mën a accompagner le gouvernement pour que seen seen mission bi réussir rawatina nag ci gàmm bi ñu jëg nga xamante ne ñoom dañu soxla matériel yi donc loolu moo waral ma ñëw fi comme teewaayu dëkk bi ak si sama kàddu club bi ay Saloum ak kàddu association bi ak yi ma jiite si dëkk bépp ñoom ñëpp dañuy bëgg accompagner gouvernement bi ak chef religieux yi ci donc loolu moom ma gën a mbébét daal ci gàttal li ma teew matériel bi donc 40 brouettes la euh, 50 balais, 50 râteaux, 50 balais nylon, 60 bacs ordu, Donc, donc le poste de santé de santé on vous a accueilli 15 bacs ordu, ordures une enveloppe de 300 000 parce que nous avons accueillir Gani. nous avons Euh, santé communautaire ñëpp ñëw nañ ci donc loolu tax ñu jox leen te accolé trois cent mille francs ñoom it pour ñu jàppalante pour que ñu au moins ñu mën a accueillir gan yi ñu jëndee ko ay médicament pour jàppale leen pour gàmmu gi réussir.